سرين بيموني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نه ميغي دلوب نيو بو باخ نه ديكو تك سي سن خادم لو نه سن خادم لو ميتام نه ليما سيره لغي نده جاخاسو ن نيوم ñar واي موسكو مو اند نيتوك ادنا نيو في كون خامنا ني سوري xam naa ne léegi ci ko rek la koy defee ndax loolu président sax jërlu ko ndax xam naw doxinam ndax moom sëñ xaadim mii sëñ tubaa képp la teg ci kanamam ku xam boppam la ku xam li muy def la ku am fulla ci li muy def la nee di boroom taxawaay bu ma sëkkit nag rawatina ci kees mu jëmmal fa sëñ tubaa jëmmal fa yoon wi am taxawaay bu rafet rafet kon bu nu sañoon ku ñuy tudd tudd sëriñ Touba taxawaay bi sëñ Xaadim am ngay taxawaay ci ñoom rawatina li nga ko seeree léegi te loolu mooy li ñu xam ci moom nee seere moom la cëpp solo ku ko dégg xam ni dëgg la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay yi yoon wa mu nekk dafa jëmmal yoon wi suñu boroom gën koo kattanal gën koo dooleel ba mu yegg fa mu jëm aca sëñ Xaadim ñëwal mat looy sa maam jur na juróom benn kenn ku ne gàmm na kenn fekkiwul sëñ Tuubaa sa maam kenn demul soxna Isa Lat Joor lañ ko jëkk a jox maam ca rey sax ñu jox ko xaalis ma ma naan sëriñ maam Seex Masamba sa maam xaali moom rek seen nelaw ñu jox ko daam xujee jëbu maam ca mat loo isa sa maam Abdou Karim Issa Dieye am satu Issa Dieye Cheikh Issa Dieye kenn ku nekk am na kenn fekkiwul sa moroom da ngaa doon téere yi leen bisimilah amin cheikh naa waaw góor nii la rek yoon wi jaamu yàlla liggéey rek nga ci def sëñ Tuubaa képp a xam sa soxla amin amin